bisimilah sunu bokki jullit yi sunu bokki taalibe yi yéen ñi doon toppanteeg nun ci siirutub Serigne Saliou Mbacke bi nu doon def juróom benn band yi jot naa jàll juróom ñaareel bi nag noo ngi koy fas yéene tàmbalee bisimilah sunu bokki jullit yi sunu bokki taalibe yi yéen ñi doon toppanteeg nun ci siirutub Sëriñ Saalihu Mbàkke bi nu doon def juróom benn band yi jot naa jàll juróom ñaareel bi nag noo ngi koy fas yéene tàmbalee bismillah sunu bokki jullit yi sunu bokki taalibe yi yéen ñi doon toppanteek nun ci siirutub Sëriñ Saalihu Mbàkke bi nu doon def juróom benn band yi jot naa jàll juróom ñaareel bi nag noo ngi koy fas yéene tàmbalee rekk ci jot a sanc ci biir xilaafa gi ak nim ko doon dundalee ak ni mu ko boolee ak xilaafa gi daara yooyu nag yetti daara la muy xel koom ngiijaan geloor xel koom nag borom la bu mu dencaloon Serigne Saliou Mbacké ndax sunu borom wax na ni wala xat katam naa fi saboori mi mbiri sikri an na larda yori sooya xibaar ye sa te fekkoon na sunu borom wax ni maa fardat naa fil kitaab bi min mbir mu mën a doon mi ngi ci wax ni maa fardat naa fil kitaab bi min sayin mën a doon mi ngi ci alxuraan moo xam xam leen ko moo xam xamul leen ko jëmmi xel koom nag colonial yi France yi ñoo ko piqueté woon bàyyi ko fi te ba nekk muy suuf soo xam ne mosu ñoo jàng ci histoire wala ñu dégg muy suuf soo xam ne mosu ñoo jàng ci histoire wala ñu dégg ku ko mas a bay wala mu dëkk fa sàmm rek la fa def ba ni sëriñ Saalihu Mbàkke ak see li tax sëriñ bi jot ci moo di bi mu doonee xalifa ci rek ci ci kore ji ci taarix bi ma waxan ca ginnaaw ba màggal ba noppi la yónnee ci état bi autorité bi booba Abdou Diouf fi ne xamal leen ni leen daal toll na ci war a liggéey bëgg na it fu mu liggéeyee liggéey bi it weesuwut mbay su ma ko su ma ko mën a def defee nag moom moom la bëgg ndax ci loxo état bi la nekk moo sañee joxe suuf génn bëgg googu itam la am goo xam ne bii état bi war na koo yëg bu lijjanti koo geneen bëgg du ci dolliku bu lijjantiku wut itam geneen bëgg bi loolu amee ñu teg caay fan góornóoru njaareem bi ñëw ànd ak ay ay ay ay ay ay ay ay ay surgaam daal wax sëriñ bi ne ko Abdou Diouf moo na yebal suuf si doon wax lan war a lan jox ndigal lu ñëw leeral la fi ne ñu signé ko nga signé ko sëriñ bi ni leen loola loola fa ñu daal koy wax suuf soo xam ne xeetu forêt bu nekk ci wetu ñii bi làmbaay diggam ak bulal bulal googu sëriñ Basiiru amoon na fa ay tool sëriñ Saalihu ni leen bulal googu sëriñ leen man li ma bëgg xajut foofu ñooñu ni ko ah foofa de xam naa yaatu xam naa lu mu néew néew daal mat na ñetti téeméeri hectare lu mu new néew daal mat na ñetti téeméeri ectare sëriñ bi leen loolu tax li ma bëgg mënu ko ndax daara yi ma njëkk na am te yéen yëgu leen ko teelu bi sëriñ Tuubaa yi doon ma ko dogal daara ju ne la ma fa am ci suuf ëpp na ñetti téeméeri bëri euh, te bu la googee ngeen ni am ngeen fa suuf su toll ci ñetti téeméeri hectare bëgg ma ko teelu bi te du ma leen ko laaj ñun ñooñu ne ko daal kon de xëy na état bi du bañ li nga wax waaye xëy na dul xam fa mu am sëriñ bi ni leen man de xam naa fa mu am bu ngeen demee te te mu ni leen fa fa koom si. travaux bi ñu defal oyofoor yi tuddee ko xel koom diggam ak euh, jaabil ci guddaay ak yaatuwaay li ma bëgg xaj na fa. ba nga demee ñu teg ci ab diir. yónnee ñu ñu ñu ñu wax sëñ bi ni ko euh, fukki bi libéré na ko xaaju forêt de classe bi na wax bi ko ci gënal sëriñ bi ne leen bi féetee jaabi la ma gënal mooy bu soow bi ñu dagg ko ci digg ba jox ko benn xaaj bi war naa amat quarante six mille junne hectares ak juróom benn sëriñ Moustapha Saalihu moom la sëriñ bi doxale woon diggam ak état bi ci wàllu signature yi forêt de classe bi bi itam sëriñ Moustapha Saliou wax na ci Abdou Diouf loo xam ni Abdou Diouf xamam àggu ci woon ci jamono yi coloniale ci atum junni ak ñeenti téeméer ak fukk ak benn di ay 91. rakk jàmm woowee lañ fab këyit yi teg ci loxoom wax ko itam ni ko moo ko moom Abdou Diouf xamal sering bi ne ko dina la fa defal ñaari forage jot def ben ba nak ab sondage waaye jutu koo defaat jutu ta mottali la ca def sondage bi mom bam mu man man ca naan non nga xamni ku dik naan nana la ko bi ju bayyi benen bam ci bëgg na nga xamni ku dik naan nana la ko bi ju bayyi benen bam ci bëggoon a dolli nag na état bi yuni dañu dikk ba mbégé ñu wàcce ko fa xëy muy ci seen ciobare wala ñu joom ci waa mbege googee nag ñu dikk ñaan ci ko suñu bi ne ko ginnaaw yow am ndox yom na la ta baga yi xis nañ ko wàcc fi ba noppi dan la doon ñaan nimbal ci nga baye nga may dan la doon ñaan nimbal ci nga baye nga may ni ko sëriñ may leen ko Abdou Diouf defal ko wa mbégé waye ko nak ñu xamni xel ko benn forage fa état def benn benn sondage fa état def muy ma nek parcel 12 ju defoon ko fa ci at moom yi mu wax bi loolu amee sëriñ bi daal di wër daara yi leeral ko soo xam ni ah, daal di koy leeral daal boobee am na dongam boo xam ne bi mu ko yëgee mu ngi njurul waaye def na ci ay woy wolof ñi ci def woyu arab it waxtu bari na waaye woy wolof yi daal bokk na ci fa mu tàmbalee xel koo ma def xare léppam yiw la xare léppam yiw la yàlla na nu am ndigal ci dem fa te am cant ngërëm ci boroom bëgg jët na ngir noo ngi seeru dolli kooki ngërëm murid ndigal moo di kiiraayam te moo di sangeem way yu gudd la dem na ba ca biir mu ni ay junni ciy ton la fay ñaro at mu ñëw mës a sës naful ma wey junni ay junni mu ñëw mës a sës bi yoon sëñ bi di ko moom donga boobu waxaat na ni sëriñ bi yeesal lislaam ji baaxal pas-pas yi dundal suuf see xel koom tey woone ñëpp ngir boole ñëpp ak yuñ gërëm yi ak may yu rëy yi yëpp a nga xel koom ku toggoo ay añ yëddoo nga yañ kañ mooy làq sañ-sañ del fett xel koom ku fiy falawati balaa nuyooti ak pal ga sotti canam nga xel koom cay ko fa ruuji déqi fa bàcc mu borne ko dëgg parcelles yi waaye nag plan bi sëriñ bi moo ko def sëriñ bi moo moo moo li mu moom li li mu jógee daaru xalimil xabiir ba fa suuf sa yem yooyu yëpp nag juróomi kilomètres yu carré maanaam juróomi kilomètre guddaay guddaay juróomi kilomètres yaatuwaay moom la jenn daara ju ne di am ba muy fukki parcelle ak juróom loolu mooy dëppoo ko waxi suñu asaaji loo jëm wax sëriñ Saliou ni ko والله أورثه أرضا مقدسة ينفى بها من رجال الله أن جابوا قوم تسكر أهل الكهف ألفتهم كأنما بينهم قربى وانساب في أرض القوم أهل الكهف ألفتهم كأنما بينهم قربى وانساب في أرض القوم وهد الله أنجزه لسالهن كما يرويه كتاب بهم يجاهد للمولى مجاهدة والذي فيهم بحمد الله أهراب لكن الشيخ مصطفى مومي ما wax bi ko rëddale parcelles yi ba mu ko noonu ba noppi Moustapha it xam nga ni borom xam-xam la daal di lool ñi te sëriñ Moustapha àndalal ñëpp itam ay donga lañu maanaam benn arset ak Moustapha dem dongay takk der yi rek sal jiite ñoom mu sekk ñoom ñoo daa ànd ak moom ci biir weeru koor yëpp sëriñ Moustapha itam di nit ko napp ba du son du sonn du mar du du du daj ci wax muy parcelle ak ñu borne yi wër suuf sot ba mu daj lépp ci weeru koor wi ba ñu waree koree googa bisub àllarba la caat date boobu yi ma wax 1991 ay tasin hijriya bi ñuy jullee ci àllarba ji bët sedd alxames hijriya bi ñuy jullee ci ba ji bët sedd alxames sëriñ sëriñ bi jox ndigal sëriñ Moustapha mu joxe déclaration xam na ni woote ne gor bi la mu ko waxee ne ko na ko wax mooy xam na ni sëriñ bi li ci wàllu état bi def na ko état bi jox na ko suuf dig na ko ñaari fois li ci wàllu état bi def na ko état bi jox na ko suuf ko ñaari for ñaari forage yoo xam ne benn bi bënn na ba noppi sëriñ bi li ciy wàllam moo yóbbu fa ay donga ak matériel bu bayee loola it sëriñ bi def na ko bàggal léegi nag li ci wàllu tëll bi mooy tëll bi dajaloo dem fa al ko ba mënees faa bay gaaw di ñent fan ci wër weeru kor Sering ku jekk mën naa dem sëriñ bu ñëw ñu wan ko parcelam sëriñ Modou Goussé Dieng moy jëriñ ji mag ji mom parcel neuf la nekkal sëriñ Moussa Bachir mo ci top parcel huit la nekkal sëriñ sip daal yi dem dem jëli parcel. seex ci ay bay bay faal yeeg ñooñu ku la jël sip jël sip parcel yeen seex ci fekk seeni morom yenn yi bokk lo benn parcel ñu gor ko ci dat boobu yi ma wax lu mat fukki fan ak juróom weeru ko ko ko kori woowee nag ba mu amee ñaari fukki fan ak ko ko ko kori woowee nag ba mu amee ñaari fukki fan ak nangam la sëriñ bi wax ci làmmiñu boppam xam le ni li ñuy jot a setal doy naa liggéey yeneen te liggéey bi dafa ëpp ruujub benn at ak moyu menn at kon yow yi ne ñëpp gërëm na ñëpp na ñëpp maase ci dellu la fa des ci lu ñu war a setal ren bàyyi faal yi man gërëm na ñëpp na ñëpp maase ci dellu la fa des ci lu ñu war a setal ren Baay Faal yi mën nañ koo àggale euh, bu ko defee nag sëriñ bu ne façon sas yemen ren bu suuf gelawee ak jàmm ma nga fa di la nekk noonu la ko defee daal di woo suñ béykat ne ko yiwi naa ñëpp kat waaye yow li nga daa togg bu ko bàyyi toog fa di toggal ba béykat it moo fa toog di leen ba ba ba Baay Faal yi setal lañ fa dese wan ñu ñu door leen ñu door faa jógee at moom nag pour wàllu Baay Faal yi dal. la Baye Fall ya setalan nag fa ñu bay genn wàllu jiwu wi genn wàll gi ci def ñu bay ñu bay ko ci huit fi si saabu jiru guruuj mu war a toll ci ñaar fukki tracteur lu topp yoo xam ne yëpp benn marque la garantie bi ak lépp mi ngi ci ñu indi ko waaye dëppug liggéey bi ak ñàkk gi ko dongo yi ñàkk a ak ak matériel booba ni mu wuteeg biñ miinan fii asamaan si teel a taw gi mu teel a booba ni mu wuteeg biñ miinan fii ak ak ak asamaan si teel a taw gi mu teel a taw akub sanc daal ni mu baaxoo méttee da dajaay indi na ko donga yow war a ma ne wuñ ko ni te itam sëriñ bi bëggut ñu ñu doxe doxee ca luy tax garante bi yàqu ñu daal di si tey ay yenn bay ca ñaari parcelles yooyu tur yàqu ñu di si ay yenat bay ca ñaari parcelles yooyu tur ak huit yàlla dogal nag at mooma mbay ma taxut mu nangu lol manam booba ne bi mo nangu waye lañu fa bay 3 googu ak 8 lañ ko defé dongo nga yako bay bacc ko baddili ko dajale ko toog fa sal jidi mo nekkal général bi sal jidi nak booba moy génération bu mag bobu yi ma waxal nga xamni ñoo ñëk a tracteur ci kër sëriñ bi amna ci lu ma jotoon junj ci sancum ñibingil bi ñoo ñoomit ñoo taxawoon dem mbaakal foofee fa wetu suñu seex matula yi sal jiite moom i nag ay ak i fëll fay ak daam jaxate ak Ousseynou Diouf ak am di faal mas ak seex gaynaar ak ñooñu ñoo ñoo fa newet at mama toll ci juróom fukki nit yu topp tuuti ba ñoom itam ba suuf sa gelawee ci 92 euh, dëppoo juróom ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñaar di bay tasin ci la sëriñ bi euh, di bay sëriñ bi digal sëriñ Modou Gueye mu taxawu euh, tabax yi waaye booba itam financement tabax yi li ci aju ci ciment ak lépp lu ci mun a ñàkk sëriñ Moustapha moo koy jënd bu ko jëndee nag bu ko jëndee nag da koy teg ci loxol sëriñ Modou Gueye forage boobee bu ko jëndee nag bu ko jëndee nag da teg ci loxol sëriñ Modou Gueye forage boobee boobee dafa Abdou Diouf defan nag ca dunus booba fa la ñuy dajaloo di móol daayira móolkat yi ak ouvrier yi Tuubaa yi sëriñ bi tuddee leen mat lawul foo séy ni ca daawi at ma la sosu maanaam euh, bi sëriñ bi ak lal yeeg ñii daal yi seng ak ñii tabax ak ñii mool ñëpp génn catégorie la ku ñuy wax mët ñas nekk seen njiit ba ñu moolee nag di móol di móol ba ba lu mën a tabax juróomi daara muy limu juróomi daara yi nekk ci soowu bi sëriñ bi dal di digle dañuy wax mbay gi nekkan ci daara ji moom ku xaral la woon ginnaaw bi mu yiwi ko dafa teel a man métti mi lool sëriñ boole ko suñu mudu gay mu daal yëpp fonn man ko ba da ba fonn man yëpp àgg bi yëpp àggee nag sëriñ bi daal di digle ni kon yëpp àgg bi yëpp àggee nag sëriñ bi daal di digle ni kon nañu ay benn jël mool yi sëfee ko nag ci parcelle douce bi nga xam fa lañ ko doon mool yi fi roosee yóbbu ko ci juróomi daara yi juróomi daara yi mooy neuf ak diis ak ak six ak ak six ak treize ak douze ci boppam juróomi daara yooyu moom lañu njëkk fondement tasaare fa mool yi bi ñu ko tasaaree bàggal fekk fondement nañ ko ci li ma wax bàggal sëriñ bi daal di wax suñu mënu gay ne ko maître maçon yi yi nga xam ni ñoo fu ñu war a xëy yaa koy wax lu ñu mën a jënd yaa koy def waaye jëmmi tabax bi moom mbay gi nekk ci bopp bi képp koo xam ne yaa ngi dem na nga déggoog moom ci ni mu bëgg ku ne tabaxee bu ca kenn juyoo ak moom kenn ku nekk itam apprenti ya ngay àndoon na nga leen digal loolu ba koo ci mënut lu yàgg-yàgg ba mu dem ndax bu ñu nee sëñ bi kat daa woote te tënku tabax bu ca dëng kenn du ko sañ a daaneel ndax sa mënoon lee ko def mbay gi nag ko yor te it bu ma ko nee na liggéey ba baax du sañ a bañ ku ca def lu dul it bu ko daaneelee doo sañ a wax daal di mbay gi lu yàgg-yàgg bu fa bu ma fa am lu ma naqari loo xam ne ak ñàkk mën a ko waral gis loolu ñaari ci xamee ne kon nit ki lu muy def lu war na ko mën a ko loolu ñaari ci xamee ne kon nit ki lu muy def lu war koy def loo ku ko xam ñu daal di dem juróomi daara yooyu noonu lañ ko defee suñ bi daal yëkkati plan bi nga xam ne moom moo ko plan daara yëpp te ci loxol mbay gi daara yi nag booba euh, guddaay bi maanaam diggante guddaay bi maanaam diggante fi muy yem ci bornop penko bi euh, benn bornop bi bi féete Saalum ak bi féete gànnaar téeméeri mètre lay doon euh, borno bi nga xam ne moo féete euh, ñaari wàll yi muy muy muy penkook sowu juróom benn fukki mètre lay doon boppam yi nga xam ne donge yi takk yi ñoo ciy ne ak tabax yi yi sëñ bi defal boppam ak yi muy dëkke yëpp ay bokk booba nag tabaxe daar yi ñaar fukki tabax la ak ñeent maanaam fukki daara ak ñaaru wet gu muy ñaar fukki néeg ak ñeent di ñeenti euh, néeg néeg bu ne di juróomi mètre carré muy ñaar fukki néeg ak ñeent mu mu dellu tabaxaat yi yeneen ñaari ne yaar yeneen yaari tabax yoo xam ne benn bu ci ne ñeenti néeg la yu mel ni yii ma wax benn bi jàngalekat yu mag yi ak kilifa yi di ci ne benn bi jigéen ñi ne ci daara yi ak waroom sax boole muy juróom-ñetti tabax bu fekk see ñaar fukk ak ñeent yii fanweeri néeg lay doon ah, ak ñaar sëñ bi itam dafa bâtiment ñaari néeg yoo xam ni moom yeex yeex na ko faa tàmbalee def dong yi nekk nañ fa lu yàgg mu door ko faa def kon bu bu àndee ñaar loolu ma wax fanweeri néeg fanweeri néeg ak ñeent moo fay nekk ba léegi ginnaaw bi nag sëriñ bi tabax loolu fa suñu beeco tabaxi boppam yoo xam ni ci keesam gu njëkk gi lañ ko def tabax yu ràññee ko yu mel ni bii mu dëkkan ci Touba te ñu di ko wax néegub si Moodu Ablaay bi ñoo bokk forma euh, formation ñoo nuroo lépp daara yu baree baree néegub si Moodu Ablaay bi ñoo bokk forma euh, formation ñoo nuroo lépp daara yu baree baree bari sëñ Béthio tabax na ko fa ci digalu sëñ waaye yooyu ci at yu mujj yi la sëriñ bi dem ci ak ak ak xarañam ak xaralaam daara yi ci sow ak yi ci penku ñoo tolloo ab ciment ñoo ñoo tolloo itam peen loo nguuru kër nag lañ loo kër nag lañ lañ taxut a bokk lool lool lool loolu it man moo ma ko wax ci làmmiñam mu def fa jàkka ak mbaarum mbaarum mbaarum terrasse moo xam ne moo jàkka ji ñoo làng mbaar yu làngaaral yu yii nag nga xam ne ci la dongo yi toog di yendu sëriñ bee ko moom moo ko jënd dem ci xaalisam daaj loo ko nag étudiants yi loolu ah, bi mu amee sëriñ bi fekkoon na mu mel ne xamoon na ni dana mos liggéey liggéey yu rëy di enquête tëjee seko yi nga xam ne ONCAD moo ko fi defoon yëpp sëriñ bi da koo jënd ci diggante département Gossas ak bu Mbacké lim ci jëndoon jege na fanweer yi seko boobu nag ci la dajji eh, samp ko fa loolu itam ñoo xam ko xam ne état dafa dugg ko ko fa doolu ci dem lu bees lu moomal a jekk la am na ci it yoo xam ni sëriñ bi da koo bàyyi fa ko jëndee woon ba léegi di ca denc ay bagaasam loolu itam ñoo xamee ko noonu boobu nag xeetu xar yu bari feeñ na ci ndax gor bi du dégguñu ku ñu ni faatu na taaw ma a ko rey wala wataa ko piir wala bàyyi maa ko lekk amu ci ku jaan matt itam kenn dégg ko ci tabaxi maçon yi itam safa bu tooy xëpp lañ daa safa tabax yi teg ci lentuy bunt yi ah, teg mu jëm kaw waxam naa ne mu may gi moo njëkk a jiitu fan fanweeri néeg yi ak ak ak ñaar ci benn bés bi lañ koy yëkkati léeg-léeg ñu ñu def ko fanaani fee xaajale ko nga xam ne léeg-léeg ñu dem fa tabax ñaari daara doolu dil si nga xam yëpp yoon lañ fa dem tabax ya yi juróomi daara yi daara raas yi loola noonu la yooyu nag plan ay wanag tabax yi rek la bàyyi noonu fu ci nekk itam defu fa ndox ndax boobu ñu am ndox ñi nga xam ne OFR yi yi nekk Linguère seen euh, kilifa loo juuf laajan ay ay wata daara yu ne ñu wutal la wata bu fa toog boo xam ne bu ab daay dee la kawate bee koy fay bu bu ab daay dee la kawate bee koy fay bu loolu amul ñooy roote ca sondaasu euh, ba fa Abdou Diouf defal di di di la indil di sotti ci sa baaj loola noonu la demee léegi itam bi loolu amee ci atum déwén ji nag di 93 bi loolu amee ci atum déwén ji nag di 93 jàpp 1900 euh, waaw 93 dëppoog dëppoog bayte euh, jeytasin junni ak ñeenti téeméer ak fukk ak ñett booba nag la sëriñ bi toxal juróomi daara yi ci soow bi nun ñu jóge woon kër sëriñ sowu bu booba ñun ngi ñaaru ñaaru sëriñ bi Tuubaa Xelkom la ñu indi booba naaf la tudd waa njurul mu yóbbu leen sept waa ndookaa mu yóbbu leen six waa lagan mu yóbbu leen douze waa na nal mu yóbbu leen euh, treize loolu booba yooyu daara ñoo tuxu muy juróomi daara ñu fekki fa daara yu juróom benn daara waaye huit nag booba tabaxaguñ ko li mu jëwriñ yi totalement dinaa ci dellu si mooy lim fukki ci daara juróom yëpp. bis boobu nag woykatam bi nekkan Tuubaa Xelkom wax na ni xadex tamma malxoonun wa bassa aniifu bi ijra imaami man naahu maxoo bi ijra imaami man naahu saati xarfin wa badratin bila kulfatin fa ni mat xiran wa xutuufu léegi nag ba ñu demee ci at moomu ba ca maamu koor wa di dee sëriñ saalihu yebal na fa sëriñ murtala maamu koor wa di mu ñëw fa fanaan fa yend fa bisub gaawu ci guddi la fa fanaan si yend waat fa dibéer ba jant bi so di dëppoog ñaar fukki fan ak ñent ci maam koor woowee non la alhamdulillah ci at itam ci lu 95 de sëriñ bi euh, tabax yeneen daara yëpp bam bam def 3 ak 4 booba itam Touba mi ngi ko tabaxloo sëriñ Thierno Diop moom suñu Modou Massamba Diop moo defar lépp daal ba mu àgg. waaw bi mu 4 sëriñ Abdou Samad Diop xalifa sëriñ Massamba Diop moom itam moo defar lépp fekku fa woon dara lu suuf. moo tabax daara ja euh, la ca war a dem lépp moo ko def yaari daara yooyu mu wax itam seex i ñëw bi dañ ko tabaxee dañ koo méebale ba lépp lu fa war a dem dem fa. yeneen sëriñ bi àggale tab seeni tabax waaye moom itam daayira maçon bi rek ñoo daa ànd ak suñu mudu gay di ko taxawee ba mu àgg ñu daal di koy sanc itam totalement. daal di yëpp daal di ami jëwriñ ami mbooloo sëriñ Cheikh mu Ndiaye nag moom moo finition daal ji ñuy wax huit cinq finition ko ne xam ne ko mooy raax ko dër ko extra courant bi dafa wan ak ya naka noonu daari de itam sëriñ Thierno Diouf Lambaye moo ko finition ci nii ma wax moom nag bu màggalee sëriñ Salihu moo ñëwal boppam ba foofa mu yiwil ko boppam yeneen daara yi ci def yëpp nag Serigne Modou Amin Tafal ak i rakkam ak i taalibeem la Serigne Saliou Sakho ñoom itam miir kër ya comme ni ma ko waxee woon. moo rakkam yi ak Serigne Baye Fall yi ñu miir ko ñoom itam finition ko ci ba mel nee mu mel nga xam ne ko fa dem. léegi ci quatre-vingt-quinze boobu wuy ma wax la Serigne bi wuri daara yëpp euh, ak daay yi ñu daa wax ñu bàyyi ko daal nii la tëddee daara un euh, jënatul ma waa la tudd. sëriñ Mayacine sekk moo fa jëkk doon jëwriñ ginnaawam sëriñ Malick si bokk ci sëriñ sëriñ Malick Bassine deux mu sopp ko tudde ko Daaru Tansil sëriñ Taax si moo fa jëkk nekk rahmatullahi alayhi ginnaawam jëkk nekk rahmatullahi alayhi ginnaawam sëriñ Cheikh Kane trois mooy Touba bi la sëriñ Soxna Fall Baye Fall moo fa jëkk doon jëwriñ ginnaawam sëriñ Alhaaji Mbakke sëtu Sëriñ Saalihu moom mu indi taalif téere wolof yi te baax lool te nekk yilimaan kaat moom mu indi taalif téere wolof yi te baax lool nekk yilimaan kaat saal jiite fa masane moom lañ sopp tuddi ko Daarul Muxti cinq Sëriñ Asan Silla moo fa euh, nekk ginnaaw tracteur yi foofa nag saal jiite mas na faa ak tracteur yi moo fa jëkk ne euh, Sëriñ Asan Silla moom mi nag moom Sëriñ Mor Jobe Sëriñ Mat Dem Si ma fa euh, nekkoon set ñu soppi ko xosul maag sëriñ Alhaaji Loo moom suñu muuduloom suñu Maxtaar Bintu Loo moo fa jëkk a nekk ginnaawam sëriñ Ibra Fall Lamp moom suñu Aliou Yomar huit sëriñ Saal jiite fa jëkk nekk ginnaawam sëriñ Lamine Diop neuf lay Abou Guèye ginnaawam sëriñ Mbacke Ñang ginnaawam sëriñ Bas Mbacke Abdoul Karim yi def waxtaan yi naka noonu dix sëriñ Cheikh Jaw rahmatullahi alayhi moom moo waxante ginnaaw te mën a jàng xasida lool ginnaawam sëriñ Cheikh Gaye moom sëriñ Mañaaw Gaye te mën a jàng xasida lool ginnaawam sëriñ Cheikh Gaye moom sëriñ Mañaaw Gaye onze mooy Darul Minan sëriñ Mënooy Saar dafa jëkk a nekk ginnaawam sëriñ Daala Mbàkke Baay Faal moom si Maam Mor Pakala douze sëriñ Saliou Sow moo fa ma sane moom lañ soppi tuddi ko Darul Mannaan treize moom lañ tuddee umal xuraa moom lañ soppi tuddee ko daaru mën naan moom lañ tuddee umal xuraa sëñ xaadim ngay gënoor moo fa mas a nekk ginnaaw waa yi naka noonu quatorze sëriñ moo fa mas di nekk moom lañ soppi tuddee ko daarul xalim wal xabiir daarul xalim wal xabiir moom la ñuy tuddee Tayba sëriñ Yuusu Jóob jàngkatu xasida moo fa jëkka doon jëwriñ ginnaawam sëriñ Yilimaan Jóob rahmatullaahi alayhi nu dellu si ci mbirum euh, xel koom ba tey mbirum euh, ndox mi waxoon naa euh, forage bi ci du Diouf def ab sondage ak douche gi ko def. léegi nag waa Sow bi ci 93 la Serigne Salihu digal Serigne Moustapha Salihu mu defal ko fa ab forage ci dirigeant dirigeant Serigne bi maanaa daal lépp Serigne bi saytu ko Serigne Moustapha itam lépp te forage ba ci loxoom la nekkan moo def contrat bi. ak ñetti équipe yi ko sét ak ki koy jaay te way war koo gas yor garanti bi ak kii tabax sërëdo bi mm, lepp bi ñu ko def ci wéru tam xarit eh, waaye nag bañ ko defee ci wéru tam xarit nga xam ne dañoon tam xarit ba tekki ñetti fan bañ daataa ak si ca màggal ga ah, kii bi bënd na sondage bi bënd na ñu tàmbali nag di gas ci way yi ak tabax sërëdo bi ah, waa contrat boobu dee gas ba ci yàgg mu mel ni daal ni ñu gisee gas bi nar naa yeex lool lool lool fekk itam eaux uh, forêt yi nga xam ne ñoo nekk ni Linguère abaloon na wata yi toll ci war koo soxla sëriñ bi daal di digle ñu santaane ko foo waaye mën a bàyyi ko sant ñëw ci santaane bi mu def ko. Eh, ay ay sëñ Béthio may jëw nguur ak daayira yi murit yi ak ñu mën a togg di indi di leen dimbali di leen toggal waaye newete gi ak ak ak santaane bi it waroon doon ay baykat tax niñ bëgg mu gaawee ni gaawee wu ni yaari daara rek lañ fa jot a gas. muy teew bi bàyyeekoo neuf dem six ak bi bàyyeekoo dem douze ci kaw loolu nag ñu daal di mujjaat euh, dig euh, wax ni daal nañu seet gaskat yi nangoo gas ñu fay leen ñu gas ñu fay leen loola nag na mu demee ba loola am mënu mu cee sori waaye loola moom Serigne Modou Gueye moo na mu demee ba loola am mënu cee sori waaye loola moom sëriñ Modou Gueye moo ko dirigé woon mana moo dirigé woon ñi daa gas ay tiwo ñi daa gas ay fondement buñ juboo juboo ñu fay leen mètre ñeent fukk euh, ñu gas ko ñooña nag ñoo ko gas gas bu gaaw waaye euh, ba ñu koy waaye euh, ba ñu koy gas itam ci niveau bi Serigne Moustapha defan contrat bi rek ci lañ ko teg sart yi ma xam ñu gas ko ci itam ci lañu ko teg xam naa bu ca dara dee desaat daal mooy dana feeñ moom ci euh, garantie bi ñooñu nag sëriñ Moussa moom sëriñ Moussa Basiru addu ki jiite woon ñoo da ñoom la sëriñ bi digaleen bis bu set ñu toggal gaskat yooyu nga xam ne dañ leen di fay añ xaw nag lañu leen di toggal ak bërikub ceeb ñu séddale leen ko lu waaye gas bu ko cordemètre bi seetee maanaam ki war a monté tiwa yi ni baax na ñu fay la loolu toll yi loola bu nee baaxut nga defaraat ko defaraat ko bokkoon na itam ci sart yi suñu soi séq nag ña ko ña ko war a gas mooy teewoo bi moom du jàdd bu jaaree ci kaw guy dañ koy dagg bu jaaree ci jànj dañ koy dagg bu nekkee ci tund wu mag itam dañuy dagg tiwo bi di ko topp ba ba niveau bu njëkk bi àgg loola itam waral na ndox mu sa manqué xew topp ba ba niveau bu njëkk bi àgg loola itam waral na ndox mu sa manqué Xelcom ànd ak benn forage rek ko yor ci fukki daara ak juróom te te di ji ji nekk Daarul ak ja nekk de seen diggante ñaar fukki kilomètres yu taxaloo la. waaye teewut ba mu àggee bañ di ko inauguré ba mu àggee bañ di ko inauguré ubbi ubbi woon yëpp baaj yëpp feesandoo loolu nag war kon war nañ cee xamee ni liggéey des koy teg ci xam-xam ginnaaw bi nag sëriñ bi sim na forage yi. nekkan euh, sondage bi nekkan euh, douze yett itam beneen forage ci coobareem paan itam bi ca des mën a yor liggéey bi Serigne moom itam maa ngi fàttali ni gor bu njëkk ba moo doonoon jëwriñ ji nga kom lay yenn bis bu set di wër ñi nañ ko war a remplir ak liggéey bi yàgg naa sëriñ bi booba itam wër boobu ci la yendu ba jant bi su nu dellu saat ci mbirum xel koom maa ngi fàttali ni dund bi itam liggéey ceeb ak suukar Serigne Moustapha moom la ko Serigne Saliou daal jënduloo ci usines yi ñu jënd lañu ñu ci war a jëfandikoo ci at mi lépp sëriñ Moustapha teg ko ci loxol suñu Modou Gueye suñu Modou Gueye indi ko xel koom teg ko ci sama loxo niñ koy wax euh, daara ju ne mi am par ci suukar ak ceeb ak diw euh, ak yi demee noonu sangal si ak ak ak cere ji Moussa nag la ko Serigne bi daal taxawuloo ñu di ko wari fële ca Mbakol Mm, waaye teewut booba itam jëwriñ ñi eh, li ñuy lekk sëriñ Modou Gaye la bu ñoppee ñu indi ko loolu nag ni ko daa divisé moom amul demee wan ginnaaw bi nga xamee ne nag débordement mbooloo mi bari na man itam sëriñ bi toxal ma delloo ma lagan xes bu tarxee yi itam eh, topp sëriñ bi rek te taxul sëriñ bi am lu mu leen mën a defal oo oh. ci la sëriñ bi dajalee wata yi ñu ko ñu joxoon addiye te jox leen ko ni ko maar yi ak yenn diitoon yi jox leen ko di leen joxob essence di leen tasaare nag dund duñ ko indi xel koom dañ koy bàyyi Touba euh, di ko dénkaat xes bu tarxee yooyu ñuy wër nag di ko tasaare noonu la demee waaye financement yi ak war-war yi lépp sëriñ bi moo ko mas di yenal ak yëpp waaye suñ njël financement yi suñ bi kuraam ay mbaaram ak ay doctoram ak ay doctoram garab yi euh, ay hôpitalam ci daaraam yi du du ci sowu du ci penku kenn musu cee doon dara li ma ci faral di wax nag naa mën na ko sëriñ bi dénkan wala yooyu li ma ciy jublu ci wax gi mooy ñuy xam ne du histoire boo xam ne dañu ma koy nettali ma di ko nettaliwaat wala ma ci waxaat mooy ñuy xam ne du histoire boo xam ne dañu ma koy nettali ma di ko nettaliwaat wala ma di ci waxaale loo xam ni dàq ginaar laa ci jublu. lu point boo xam ni indi naa ko ci biir waxtaan wi itam damay bëgg mu leer naññ ba kenn du fi waat di ci yóbbaale ak lënt. léegi ci 1998. la sëriñ bi tabax ab hôpital xel comme ni koy wax ab fajukaay ba ma koy def itam yónnee na ci état bi yëgal leen ko ñoome wi ñu ko waat woon sëriñ bi ni ko loolu ñoo ko war a def ba ñëw teg si xeer wa waaye ginnaaw bi sëriñ bi yónni si saliwu ni leen dogu naa ci def ci ba noppi te mënu ma jéggal naa leen ko loolu leen sëriñ Moustapha ñu yóbbu ko Daaru Xuddoos mooy fa ñuy wax jéebul amuñu fa bayal moom kat ci Daaru Xuddoos ñu yóbbu ko fee mu ne loolu noonu la hôpital bu mel ne sëriñ bi moo ko tabax ci financement yi boppam waaye booba itam sëriñ bi bokkoon na ci la tax na mu ni maa koy defal sama bopp dafa wax ni li may liggéeyal sëriñ Touba maa ci yor sama sottaxandu bopp ni mu ni mu juboo itam ni laa ko war a defee te état bi bu ñu ci dugalee seen loxo dañ ci daal di teg seen sarti bopp te ñoom mu ñu dugal seen i sart yàq la nga doon def looloo tax ma bëgg koo defal saa bopp at moom itam la fa courant ba ñëw ca déwén sa maanaam 2000 net daal ba muy jege ci la ci déwén sa maanaam 2007 daal ba muy jege si la la courant bi ñëw fekk daara gi ne installé nañ ko dañ koy fi ñu changé docteur bu ñuy wax Seck moo fa jëkk a ñëw ci 93 booba mën naa ko jox léegi rek ak ak man ni daal wutal ko fu mu mën a ne ci daara ji nga xam ne moom la machine bi yor la ginnaaw bi ñu taxaw taxaw loolu noonu la demee kon dafa mel ni mbiri xel koom wax naa ci lu bari léegi waaye kon ci ak leeral ñu xam ni ay ma njëkk a remplir turu yi rek noonu laa demee jëwriñ yi moom mosu ñoo taxante ci seen i biir tracteurs yi itam daanañ taxoo ci ji daana dem ca jiyee nayoo dooñu fa ne jii jiite itam moo njëkk a doon jëwriñ yi Serigne Salihu ci ci ci xel ko moo ko jëkk fanaa ni daal nekk na fa it ba ni Serigne bi làqoo mosu waa jógee léegi nag Serigne Salihu moom ci jëmmam mi ngi njëkk a ñëw xel koom suba alterné di benn altine di benn fanab rajab maanaam li ñuy wax ndaje koor ci 1995 dëppoo junni dëppoo junni ak ñeenti téeméer ak fukk ak juróom sa gàddaay ga boobee muy ñëw euh, ci dibeer ji ji la jëkk euh, yebal kilifa yoo xam ni mooy doomi mbàkke mbàkke yi doomam yi ndaw yi muy suñ jiilal sëñ Abdou Lahad sëñ Moustapha Xasida sëriñ Dan Bousso sëriñ Abdou Majid mu sëriñ ab mu sëriñ Abibu ah, Baye Diagne ñooñu soxna bu ñooñu ñëw fa jëkka yenn si bisub dibéer ah, nekk ko fa ba mu ñëw ba asamaan sëriñ di altine jooju ma wax sëriñ bi ñëw booba itam ci taw feexee sunu borom mi nga nu may sëriñ Saliou ba mu ñëwee sama daara jolal dal muy neuf bu ñëwee sa ngam si Mourtada moom la ñu wéyalaat rek sëriñ bi nekk fa digaloo noonu ci ay néeg booba noonu la demee sëriñ bi yendu fa bëccëgu altine ba ca ngoon ba mu agsee nag la ñuy mbàkke mbàkke yooyu ñoom ñu dem mu yendu fa ak noonu ba mu fa yendoo ba bi euh, ba takkusaan ba bi euh, ba takkusaan sëñ mbàkke Jóob fekk si na ko fa sëriñ Saliou ambassade ànd naag si motul am sëriñ Fallou Mbacké doon ko yëgal si màggalu suñ euh, Modou Bousso Dieng gi màggalu suñ Fallou gi ci ndigalu Serigne Modou Bousso Dieng ñoom dañ doon topp sëñ bi rek xamuñu fu mu nekk ndigalu Serigne Modou Bousso ñoom dañ doon topp sëñ bi rek xamuñu fu mu nekk ba fekk ko foofee bañ ko fa fekkee itam bi ma ko yëgalee Serigne bi sëriñ bi wax na ni nañ daal di ñëw léegi bañ accès sëriñ bi ni leen yéen seen dikk gii seen ndigalul bàyyi la àndal ndax bu ma amoon sanc de te fekk fi Cheikh Moustapha ak Serigne Fallou faw yu ñëw fa kon nag ginnaaw yi ak Serigne Fallou faaw yu ñëw fa kon nag ginnaaw yi maa ngi njëkk sanc si xel koom tey ñun fekk ma fi di sama ñaari doomi Serigne sama xel dal ci nañ ci ni sama liggéey bi Serigne Touba nangu na ko ba mu jullee takkusaan dafa gowante delloo daal di ni maa ngi dem te dellusi baal dina ji dellusi bët sëddi talaata di juróom-ñeent fan ca bët sëddi talaata di juróom-ñeent fan ca weer wa mu mu dellusiwaat fa ba mu ñëwee itam la mu ma njëkk a wax mooy dani nañ daal di yónnee ci daara yëpp ni leen buñ togg añ Sidi Mbàkke sama doom yi moom suñu laat wax naa ko mu indi fi ay añ nes tuuti añ la si bàyyi baara yaay moom suñu laat ak laat gaye añ la si bàyyi baara yaay moom suñu laat ak laat gaye ngoox ak am di gay ñoo ànd indi ko ba ñu ñëwee moo wax ko sëriñ bi sëriñ bi nii nañ daal di jàll si ñu ñëw ñu wàcc na bi sëriñ bi gis ko ñu tasaare ndab yi yóbbu ko ci daara yi fu la fa war a dem dem fa léegi nag dem dem léegi nag ba leen sëriñ bi yiwi dafa woo Baye Baara Ndiaye ak am liggéey bañ ñëw mu ne nii leen ma sëriñ sii di te ne ko na yëg ni kat li tax ma bëggal ñam bi may njëkk a jox sama donga yi bis bi ma fi njëkk a yendu France yi jógee kër sëriñ Abdou Lahat ba suuf si bàyyee ma tax ma jot si ndax nga ñaanal ma suufu xew ko bi si ma jot si liggéeyal ci sëriñ Tuubaa sëriñ bi ne ah ma ne ko yow ñaanal ma rek lay tax ma jot ci moom yàlla xam na ko sëriñ bi ni ma sëriñ bi laat ni ma yow de am a sa ngërëmul bàyyi loo bëgg sa bàyyi def ko loo kon nag loolu de ak cant la gu ma di seeree loolu yéen ma ko waxal sëriñ si bi ah, loolu nag day xaw a niroog woy yi ñaar fukki at itam weesuwu ko neewal na ko man xaasaho bi sayidin fil hadari wal badiwi xaasa luulu an bil madari wa xaasa bil ujaaji xaawdal kawsari wa xaasa bi suhulati nooral xamari ata rajasul master la bu bu yéwee bu raar day sëkk xar baax ci Serigne Saliou léeg-léeg ñeent mooy néegi donga yi benn néeg bu ne day am jëwriñ juy taxawu te tool ya toolam fukki nit juróom lay àndal xëy ci ak moom jëwriñ ji ba daal yëpp ba néeg yëpp daj moo am nag général boo xam ni benn muy général boo xam ne moo boole ko affaire mbay meeg njàngale meeg jàkka jéeg lépp léeg-léeg it muy général boo waxoon naa ko ci ginnaaw léegi kon day mel ne daara ju ne lu mu néew néew ñetti téeméeri nit totalement dana ca di nekk la fay nekkaat nag ci ay surga yoo xam ni ah, ay soxna la ñuy doon ak i parental ak kilifa yoo xam ni xëy na kilifa dëgg la ñuy doon yoo xam daal dem tool miinuñu ko kilifa dëgg la ñuy doon yoo xam daal dem tool miinuñu ko wala sëriñ bi eh, sëriñ bi mayu leen ko ak yu li ma jubloo wax ñu bari xam nañ ko ñooñu ñoom ñooy nekk ci kees yooyu yi ma waxal ñoo ñaar fukki nit ak juróom nga xam day mel ni lu mu jëy suñ daal mooy ab appareil bi nga xam ni léeg-léeg mën na koo manqué tuuti léeg-léeg moo appareil bi xam ni léeg-léeg mën na koo manqué tuuti léeg-léeg mu ëpp ko tuuti waaye mosut a manqué nag ba manqué ñetti téeméer diiru bi sëriñ bi nekk bi nag ah, loolu mooy daare xel koom bay nañ ah, naka noonu ah, noonu mu ruuj bi Ah, noonu mu santaanee ruuj bi ak tabax yi na daa santaanee ba liggéey bi ngóob mi moo ma ñu fa njëkk a nun noo ko bay eh, ah, sal ji bi ñoo ma ko jiyeen gerte nay bokk ko bay sëriñ naar jël na ko sëriñ bi góobloo ca quatre-vingt góobloo ca quatre-vingt-treize boobu bu ma wax ah, ca déwén sa daara ji ne bay man sun daara ak daara yi suñu mën dem siis euh, booba nguub moomu mépp suñu Modou Bousso Dieng lañ ko guubloo waaye mbokk bi yaari daara yooyu ma wax muy sama daara nag ci tudduma leen ci juróomi daara yu jëkk yi ma waxoon te ginnaaw suñ naar jenn moo ko bojj ginnaaw bi itam gerte gi noonu la daa def suñu mbokk soxlaloo moo daa badd euh, li li tracteurs yi bay nayu ko ne bàccal sa bopp am na ci nag at moo xam ni nayi ak ak ak waa Daaru Salaam la leen sëñ bi séddale ñu wàcc ko ci biir weeru koor suñ mbàkke bàcceel tracteurs yi ah, am na ci at moo xam ne itam suñ mbàkke moo bàcceel nay bàcceel tracteurs yi loolu noonu la demee ndéq mi itam ca tàmbali ba suñ ah, ah, at mu njëkk at mu njëkk ba ma ca at mu njëkk at mu njëkk ba ma ca topp sëriñ bi moo wax ci làmmiñam ni ña dëkk ci la wër tumb nañ ñëw la yeneen ma gerte gi ginnaaw bi mu mel ne ñoo dañ caa noppi sëñ bi ñëw jël si daara yi ci sowu muy nu ñii yóbbu nu ñu dem dajale ji ko ca déwén sa su ñoon di xadifaal warlu ni ni moom léegi bu ci amee ndigal na koy dajale ji muy dem di dajale ji tracteurs yi nañu ko ne dajaleel sa bopp booba itam diirum njëkk ni bi sëñ bi doonee xalifa sëriñ Béthio mooy toggal tracteurs yi eh, ak ak ak ña koy dajaleel muy sëñ bi xalifaal suñu saalum turé ma ca kees di toggal na di ñu di ko ñu di ko mën nañu ko tudd euh, léegi itam suñu saal Touré moom kees lay toggee. di wata Mouride Cissé jiite leen ak seen mbay sàll ñu ñëw joxe ko loolu noonu la demee noonu ba ñu demee nag ba ñu demee nag ba def ko yaari at ci quatre-vingt-seize suñ beejo sëriñ bi digal ko. moom mu aw ci suñu am di xërifaal ndax yooyu jamono la sëriñ bi di sant suñu am di xërifaal mu war di eh, kii defar kër sëriñ Touba gii ci Touba eh, léegi suñ dojo moom di la jaleel eh, léegi suñ dojo moom di la jaleel tracteurs yi suñ dojo nag bu muy la yi boobu moom moo daa toggal tracteurs yi waaye mooy toggal itam ñoom ko indi ñuy ñuy deq suñu daal turé continuer di toggal ñu yor na yi booba itam sëriñ bi ba mu njëkkee dajaleloo suñu béykat ni mu ko dajaleloo fa ñuy wax de daru tansil ba ba ñu dajalee ba àggale itam sëriñ bee ko yëwisi ci ci tam ci jëmmam daa dawal wataam ba ci digg call ya mu wàcc daal di xam ne ne kat man jëf lu rek ay sama liggéey te jëf ju ne xam naa ak jëm nag wax amu fa jëfa jëfal sëriñ Tuubaa sëriñ bi wax nag booba ba nu sëriñ bi làqoo at mu ne mooy dajaleel tracteurs yi waaye nag nay moom kenn mënu leen dajaleel kum seen bopp léegi bokk na ci xar baax Serigne Saliou yi fàttali woon naa ne gor bi mu mosu ñoo dégg nit ku ci faatu ne yil la naka noonu itam da ngeen di xool sànq tracteurs yi ni mu réyee ak la ci jaxasoo ci ay nag te ba fii ma toog nit mu mosu cee gaañu ñu ne aw na ko jam wala mu patt wala mu dee wala ñu ne tracteur bee ko fiir wala mu ñàkki baaraam ñu ne peñe bee ko képp mbaa benn accident am ci ba tey bokkul ci xar baax yi benn sa wërëb Serigne Saliou am ci ba tey bokkul ci xar baax yi benn sa wërëb Serigne Saliou bu mas a accident itam kenn mësu koo gis kon mbiri xel koom foofu doy na cee yem léegi ñu ñëw ci daara ji topp muy ngéejaan ngéejaan nag mooy wànga rek ku ñuy wax Matar Diop ak ku ñuy wax Diallo Diop ñaar ñu bokk ndey ak bàyyi lañ ñoo ko joxoon Serigne Saliou euh, booba nag wànga ak ngéejaan lañ ko Serigne Saliou euh, booba nag wànga ak ngéejaan lañ ko tuddee seen maam dafa goral wax nañ ni mas na faa taxaw ni fii mooy wanagi Touba borom Touba dana fi mos a ñëw fa mu taxawoon wax ko nag fële Serigne Saliou def daara ja léegi nag ñu ko sañ ci moom ci biir xilaafa sëriñ bi waaye jox gi ko jox sëriñ moo jiitu xilaafa gi. xilaafa sëriñ bi waaye jox gi ko jox sëriñ bi moo jiitu xilaafa gi léegi nag faafa sëriñ bi ku ñuy wax sëriñ Moustapha Sarr moo fa nekkan jëwriñam ji taxawu tool ya ku ñuy wax sëriñ. Euh, Mor Seck nekk fa di taxawu njàngale ma ginnaaw suñu Mor Seck itam ku ñuy wax suñu ma ne ginnaaw Serigne Malick si itam ku ñuy wax Serigne Gora Ketara jot na faa ne ñooñu ñëpp ñoo daan taxawu njàngale ma ak diine ji Moustapha Sarr moom moo fa mas dina ba ne Serigne bi làqoo li ci topp muy ñetteelu daara ji mooy geloor geloor itam taxut ma xam ñi ko joxoon Serigne bi moom itam mooy jiitu gi waaye kër ga ba mel ne moomee Serigne Xaadim Gueye gannaaw moom suñu Cheikh Law sa Gueye moo fa mas di nekk doon jëwriñ ji am nag sëriñ bi daan dafa yebal suñu Moustapha Diaw mu di fa yóbbu tracteurs yu màggal yi daan ay benn benn donga ñu dafa bay bési. léegi kon mel na ni sëriñ Saliou Mbacké moo ko moom nationalité ko mu nekk ci aw turam abi kayit mu dundal ko def fa courant def fa ndox def dëpp lépp lu mu da ñàkk di fa mbooloo hmm? ñu boole jàng ak liggéey ak yaru mat na ñaar fukki daara ak juróom bi kër gëm fa def nit ñëpp gis nañ ko xam nañ ko moom itam plan bu mel ne ba ca xel koom la li ñu wuti rek mooy guddaayu kër gi moom ya ca xel koom tulut noonu moom itam li mu ñetti téeméeri déglu topp nekkan na fa waaye ñoom daa wuñ bay dañ daa jàng rek ba léegi Touba Daaru Tansil gi ci Touba. Tansil gi ci Touba noonu moom itam kër gu mel ni gi ci jëlatul ma waalo fu sëriñ bi def plan ba it benn la xaaj bi féeteeg Saalum Omar Kenn moo ko tabax xaaj bi féeteeg gànnaar sëriñ Béthio Thioune moo ko tabax moom itam lu mat ñetti téeméeri nga fa sëriñ bee ko moom lu mat ñetti téeméeri ñi ko moom aw turam moo ca ne naka noonu daal di ngëbu waa ak jën jël waa ñoo niroo plan ci gàttal daal ñoo niroo plan ñoo bokk lu ñuy def li leen wut rek waa xel ko mooy guddaayu kër ak i tool kon dafa mel ni bu àndee ñaar fukki daara kon dafa mel ni bu àndee ñaar fukki ci daara juróom yoo xam ñaar fukki daara ak juróom ñett yoo xam ne yëpp daara joo ci dem mat na ñetti téeméeri nit sëriñ bi boole saytu lépp puut itam sëriñ bi amoon na fa suuf su yaatu lool def am ndox daa fa bay bési bu bari suñu am na xëdifaal di ko def am ndox daa fa bay bési bu bari suñu am na xëdifaal di ko góob waaye nag moom amutoon ay néeg wala mbooloo daara dafa dem wala ñu def jàng moom itam sëriñ Moustapha Diaw rek la sëriñ bi boole woon ak benn benn donga ak téere téere yu màggat ñu di ko dundal diir li fi sëriñ bi ne moom itam sëriñ loolu moo waral noonu mu meloon ci xel koom ji ci wàllum paj yóbbu fa docteur muy docteur bu ñu xam ci yoon yi ñu koy wax Moustapha Sorang di sëtu sëriñ ma Sorang Sorang mi ngeen xam mi xam ni ci sëti ma yi la bokk sëriñ bi moom moo ko tànn ci sama dongo yi ci Touba na ko mel ne Moustapha Sorang di def bu ko ci kenn rax loolu nag la waral leen sëriñ bi di ko wax mm, du neexal leeral lépp waaye xam nga ku ku yorewut ci kër gi lu jóg mën na waxee nu bokkut nam demee lu jóg itam mën na caa getalee ku ci nam demee lu jóg itam mën na caa getalee ku ci yoonum niwut lu war a yëng ci néeg itam war na ko yóbbu mën na ko yóbbu fu mu war génn moo tax Moustapha Sorong moom ci la sëriñ bi doo ko ni lépp dongaam bu ñu war a faj ci dëkk bi Moustapha Sorong koy faj bu demee ba ñu war koo jàllale itam Moustapha Sorong bu demee ba koo jàllale itam Moustapha moo koy jàllale waaye da daal tabaxal ak ah, ci hôpitalu Touba bi appartement yoo xam ne dong sëriñ bi yi ñuy yi ñuy téye di leen fayoo ci dëkk bi rek ñoo fay ne. Moustapha Sorang itam ba mu doonagul njiitul hôpital bi daw Moustapha Sorang itam ba mu doonagul njiitul hôpital bi dawul fa kenn kuru dongub sëriñ bi. loolu da nga ko fi baan hôpital bi nag moom beru état bi yor ko sëriñ bi itam euh, dem jëliwaat ci biir dongo yi. koo xam ni fi man la nekkan ku ñuy wax lu bin jëng sëriñ bi natt koo xam ni fi la nekkan ku ñuy wax lu bin jëng sëriñ bi natt ba ni ma lu bin mii gërëm naa ko xelam doy na ma ak teeyam doy na ma fekk loola la ko la waral sëriñ bi xam ko ci moom ci saa yir mooy ba ba muy nekk xel ko moo daa taxawu gone yi wax gone yu néew doole yi nga xam ni seen reer ci loxoom la wala ku ci wacc mu taxawu la léegi googee ci am nag ak teegeeg sago si kuñ ci war indi Touba mu indi la moo tax sëriñ bi ni nañ ma ko jëlee li ma dem jëli ko jox ko mu jox ko sorang léegi ni ko moom na lay taxaw na lay dimbali ci badd lib gone yi bu ko defee yow ngay faj ñoom ñaar ñëpp ba léegi ci lañ ne ginnaaw bi comme daa toog dafa faj docteur Fall la ko sëriñ bi wax ne kon bu la kenn mu ñàkk a wuute ci sama dongo yi na doon docteur Fall ba fi mu ne ne sëriñ bi itam ah, noonu mu ko amee woon ci Touba ni la ko amee woon njëriñam ku ñuy wax Malle Sow la fa tegal nga xam ne moom du faj waaye ku ñu fa indi moo lay taxawoo ndakaaru geenaanum garab bi sëriñ bi di ci def xaalisam lu mu mën a doon mu di tracteur mu di forage muy garab ak docteur sëriñ Moustapha Saliou ko daa jënd bu ko jëndee ba wax ko sëñ bi sëñ bi wax ko lan lu ci ne ñam koy jox nag moom noppi na ci booba itam Moussa Samb la sëriñ bi nomee mu bàyyi lim daa def lépp andi ko ci kër gi ne ko maanam képp ku wér di jógee ci daara ji yi yaa ko war a taxawu ba mu wér ba dellu ci daara ji Moussa Samb itam ci loolu rek la nekkan nga xool ko ni bi mu yoroon ni mu ko yenoo woon ak ni mu ko ëpp ni ko taxawee woon nga xam ne loolu war na ci mën a jànge yu bëri loolu ci mbirum xelkoom laaju ba tey ñi xam ne dañuy laaju ba ñi nga xam ne dañuy wax ni xelkoom ndax sëriñ bi lam fay dëkk jar na ko ak jëru jar na ko ci saahir jar na ko ci baatin ngir mbay mbay mbay nañ fay bay am na ci at moo xam ne tracteurs yi képp jaag bañ defan tracteurs yi képp jaag bañ defan tareex bañ ko bojjee fuutee ko manqué ñetti junni bëriwu tuuti te ko ak li nay bay mba naye itam benn jaag bu ci masa manqué junni bëriwu te fekk muy at mun na nawet am amut am na ci at moo xam ne itam li ñu tusaale ci mbayum gerte moo xam ne tracteur at moo xam ne itam li ñu tusaale ci mbayum gerte moo xam ne tracteur yoo ko bay ak ak ak kii yi ak na yi ñaar fukki junniy bërigo yi toppal na dara at mooma reversage moo wut si woon na mbay ma fa ma fet lii ma wax lépp itam lépp lu ci lépp lu ci sëriñ bi deflu lépp lu ci lu ci lu sëriñ biy deflu te tamit lu ñuy signé tubaab di ko signé maanaam ku jàng tubaab di ko seq sëriñ bi sëriñ Moustapha la sëriñ bi doxale woon loolu wax naa ko waaye nag lépp lu ñuy keccax wala sëb mbaa mbaa mbaa mbaa pepp mbaa lu ñuy lekk wala lu ñuy gind loo xam ne bii daal lajut signature mbay mi taxawu jiw ak engrais yeeg xolli jiw yeeg daraame la sëriñ bi na euh, ko sëriñ bi tegan ci bopp bi fekk booba sëriñ Moustapha Diaw wét ko sëriñ bi féete loolu daa bari mu ne nag Moustapha ko war a def waaye nag wet gii la ko ci ndongo di dimbali ba moom yi man ba moom ci laa ko Moustapha Diaw ni ko léegi yow lii mooy sa léegi nag daal di ko ni damaa bëgg nga nga nga sonn ci bu baax leneen loo xam nag ni mënu ko booleeg taxawu tool yi ñu bàyyi loola ñuy def loo ko keneen loola xel koom nag mujj na bokk ci wiili Sénégal yi gën a Sénégal kanam wiili Sénégal yi gën a jëme Sénégal kanam ngir mujj na nekk communauté rurale ci façon ak mbooloo ak liggéey dafa nekk ci peen ak i travaux ak i noonu téléphone am lépp lu wil di am mu jiro ko am lu ci marché sëriñ bi itam noonu mu amee woon ñu ko noonu mu amee woon ñu ko féete ci yenn pasteur yi ma wax ni ki ay si Moussa Diop ak sa Moussa Sam ak ñooñu sëriñ Saliou si mi ma waxan ca ginnaaw moom itam noonu la ko indee mu saytu ko mbiri téere yi diggante kuy laaju téere ak téere yu manqué ak yu ñu fi indi addiyee bi ñu demee itam ba def ba ba euh, liggéey bi débordé nii mu débordé mu mel ne war naa yi itam euh, léeg-léeg mu am ay ay ay ay ay naqare gis sëñ bi ak war a agsi ci moom mu të le sëriñ bi namee Saliou Jaxate mii moom itam muy féetewoo képp ku docteur bi bindal ordonnance wax xate moom moo koy taxawee bu ñu ko waree yóbbu Ndakaar wala ñu war koo yóbbu euh, njaareem tam ci moom lay jaaree ci baatu sëriñ bi kon ñu xamee ci ne képp ku ñu mës dégg ci kër sëriñ bi mu am fu mu féete sëriñ bi ci wet gu mu mën a doon lu loola bari bari bari bari ñu njëkk ñeeg ñu mujj ñi maanaam li sëriñ bi bëgg ci donga yi mën a dox kese maanaam li sëriñ bi bëgg ci donga yi mën a dox kese kese kese kese moo leen si mës a indi leneen mosu cee dellu ko leneen mbaa boog muy koo xam ne moo fexe ba toog fa ñëw fa làqar ci ba toog fa waaye sëriñ bi moom ñim yaran ci daara ji tërbiyee leen yilif leen am ci ñu wàcce woon engagement leen bi leen bi mu doonee xalifa ñooñu ñëpp ku ci ne sëriñ bi moo la bàyyi loolu la nga nekkan ni la ñëwal toog fii ànd ak man ci liggéey sëriñ Tuubaa bi sëriñ Tayib Jaxate mii nga xam ni doomi sëriñ am sëriñ Jaxate rek laa ci xam koo xam ne sëriñ bee ko bàyyi loolu lam nekkan ni ko ñëwal fii bàyyi sa taxawaalu bi te ànd ak man ci liggéey sëriñ Tuubaa bi loolu la ko sëriñ bi waxee léegi nag sëriñ xam ne ci Tabaski 1992 ni maa ngi woo maa maa ngi yéene yeesal yoonu murit wi ci waxi Sëriñ Tuubaa jëm moo xam ni xafistuma si naa yi dafa atiri laa tawali fi yaquudullahu asraara laa ilaha illa allahu fàttali itam li Sëriñ Tuubaa waxan ci atam yu mujj yi ci njaarim ni ku la joxate sa doom na jàngaloo ko liggéeyloo ko moo tax maa ngi barkeelu ci waxam jooju di di yéene esalaat yoonu murid wi barkeelu ci waxam jooju di di yéene esalaat yoonu murid wi di ca woo ñëpp di bëgg ñu jox ma gone yi ma liggéeyal Serigne Touba ci ñoom boobu nag ñun ñu wuy si nañ ko lool xeetu nit wu ne ci xe ci këri taalibe yi ak këri seex si ba ci maasu seen becc gi ku ci ne ba ci maasu seen becc gi ku ci ne ñii yóbbu nañ seen doom ñii yóbbu seen i donga ñii yóbbu seen i jarbaat ñëpp teg ci loxol Serigne Saliou Mbacké fekk Serigne bi jëm parka na jiw wu yaatu ci ay général yu bari yu jàng-njàng mu xóot te jàngee ko ci daaraam yi ñenn ñi fekk nañu yiwu ko ci daaraam yi ñenn ñi fekk nañu yiwu ko ba doon suñuy waajur sax muy maasuk Serigne Saliou Touré gi ak maasuk Serigne Saliou Serigne Saliou gi jëm kaw ñëwoy Serigne Saliou ci lu mel noonu ci ñoo xam ne ay teelu bi rek la ñuy itam muy maas suñu afi bu segi ak suñu abdoulaye jaxate gi bari gépp na bu segi ak suñu abdoulaye jaxate gi bari gépp na waaye way yooyu yëpp duma ci indi benn damay doyloo rek benn benn way yoo xam ni ci génération 1980 bi lañu bokk ba ni sëriñ bi làqoo jànge ci daara ji alquran ak xam-xam ñen ñi indaale fi sax alquran waxtaan ak xam-xam ñen ñi indaale fi sax alquran waaye xam-xam moom fi lañ ko dànge muy maa suñ alhaaji loogi ñene ñi dala fi baa baa mee fi xam-xam defee fi lépp muy maa suñ mënay saar gi bokk na ci yennati way yooyu way ngi bu wax fala wallahu midiyanu qad tana iqlimin wa handasahu muharraran minhu kalkomun wa qabbanu maa yuridu bihi xalsan wala waraqan qul mursidun munfiqun saafi li mun xëenoo daa ilayhi ni sëriñ Saliou Mbacke dafa fekk àll boo xam ni musi sa dégg ci histoire wala ñu mës a gis ci bët ku ko toj mu dundal suuf sa yàlla rekk tax yéen euh, kenn layu ci kenn dara wuti ci it mu ne lu la soob yi doo ca fekk lu loolu mu ni tabax décentralisé lu lu mat fédération ci Sénégal wala département boo xam ni lépp ma ko sonnee te li ay français dugul ci ONC def la wut ca état dara su wóoti wu ay ndimbal lépp ma ko def ca coobareem ba nangami téeméeri million ca coobareem ba nangami téeméeri million moo ca dem ca ab taxawaayam loolu bokk ci maanaay wayu yooyu mu ne kat Serigne Saliou jubal nit ñi rek ak bindal leen ak saafara raggi xol yi moo ko dugaloon ci loolu. mu ne bi mu ca wootee nag woo ñëpp publiquement ne bi mu ca nag woo ñëpp wax na lam ci jublu mooy li ma xam ni CEPRAD yoonu murit laa jublu. mu ne itam sëriñ bi moo plan suuf si te xam-xamu boppam def fa lu fa ne te xam-xamu boppam te benn jëm te amu ci. mu dëkkal fa nangami junniy nit te benn jëm te amu ci mu dëkkal fa nangami junniy nit ndax kenn mës na koo dimbale waxal waasaahu yalwaani jooju mooy laaj bi arab tuddee inkaar yu ak taw bi yëq yu naka noonu mu ni sëriñ Saalihu Saalihu farlu muuram ma lottal na wër kenn ku mën a dab dëgg-dëgg wax sa saalihul ak ni mel kuy woy di tagge mënut a indi lépp ku muus di taalif mënut a indi lépp ataa muhiyan na jël xanii fii mu sëriñ Saliou daal dafa ñëw yeesalaat yoonu murit ci ak xanafi yoona indi cosaane ragal yàlla yëpp lu ne mu delloo ko ca place am euh, kuru sëriñ Saliou Mbàkke tës nii la mu ni ci maanaam wuy si gi ko ñëpp wuy si nag ñëpp marché doyloo ko mooy lii bi kaffihi jamaal lii bi kaffihi jamaal haajil jumuha bihim tusassudora tusassuduru ursaasahum mujtamayi ci teewul Serigne Saliou Mbacke la yàlla mi ayu jubal dajalee xeete mbooloo yëpp mu saafara ragge xol yëpp te dafa mel ni moom moo mandal société l'islam loolu nag du soree waxi Serigne Bassirou Mbacke ju ma xam Serigne Touba loolu nag du soree waxi Serigne Bassirou Mbacke ju ma xam ne ko axlaatu sumari yëpp dañuy wàcc ci kër Sëriñ Tuubaa muy munaaxul waraa muy yësu ko ay mbindéef yëpp mu ni Sëriñ Saalihu Mbàkke day ni mu doon tërbiyaa bi mu wootee ba ñëpp ñëw mooy nii tërbiyaa bi mu wootee ba ñëpp ñëw mooy nii nasamal xalaa'ida xilmuhu bi matiniha wa minal bi jamu na jëy ahmadi mu ni day Sëriñ Saalihu Mbàkke lewetam gi dafa tax bu mu ragal yàlla nas ci tari doomi lislaam yëpp bokk na ci nas ci tari doomi lislaam yëpp bokk na ci xarbaax nag boole sariha xaqeeqa ku attan lépp nga boole lépp def ci moom ku mën a doxee benn bi nga ci benn bi ba mu am lu muy bu tollu loroo wa kasarte yaadun foosina bi la taafatin wa tasaqafuna haala jaati saabi taxamudi mu ni bokk na ci technique bu ñëpp nooy tegu ci yoon mu def ñepp taxliya bu rafet di ñom taxliya ci kaw ak ñewante ñi nga xamne xamu ñu yoon wa jaaruñu fa ñu war a jaar itam mu sutural ñepp di bunti deug deug yëpp ci kaw sutural leen حسن حسن خلقه قال الورع بما ngi rasatu nakum mo tax mu dajale ñi wara xal yépp ñu dik soobu ba kenn ko ci nek ru serigne salihu mbacke sax man la fa taxat tok ba am la ngay wut tane ko pass pass indi wulawon waye mu ji fess del ak pass pass ci kaw technique boobu loolu bokk na ci woy yi ñu woy Sëriñ Saaliu Mbàkke Saaliu Mbàkke nee na ko sajaayaa xulqi tafsiru daban ween saarun wa tajnibul mujuni nee na Cheikh Saaliu Mbàkke day aadaam baaxam katalogam mooy ko ak si mu muñ la bégal la dalal sam xel di xëpp nag ñëpp ci kaw ga walaa iluhoo li waqfi suuf bi yusri yi wafóor wafóoru nayli xaabu samini mu ni mayu sëriñ Saalihu Mbàkke moo ëpp doole aw niir wuy dotti naka noonu buy maye lu bari lay doon ku baaxoo mayee lu seer la wataak lu ne lay joxe lu yéemu lu ne lu seer la wataak lu ne lay joxe lu yéemu lu ne da daa joxe bokk na ci woy yooyu woy yi ko sëriñ Cheikh Gaye yi moom sëriñ Lamine Gaye woy nee na ko set laa tamassat bika najaawu xul koomu fi leyli mi madi maa lil kulli tëx wiimu ixsaasuha fi lmawaa milq wiimu ixsaasuha fi lmawaa mil xawfu yarbituha xablu stiyaaqin bi tilkal ardi mabruumu mu ni waaw lu tee ñu yor ay avion ak sareet ak ay wata ak ay gaal ak saxaar ñu ni siw wuti xel koom te farlu lool soññante te ak ragal yàlla koom te farlu lool soññante te ak ragal yàlla boo xam ni sopp Cheikh Saliou Mbacké fas yéenee dem liggéeyale ko ca suufam sa ca xel koom mu ni ko ardi sani yi taqiyil xayri saalihu xel koomu xel xel koomu xel koom mooy mooy suufa sang bu ragal yàlla bu yëkkatiku ba ay mbir di yiwu kese Cheikh Saliou Mbacké mi nga xam ni moo waral Khelcom di tiitaru ci pays yu mag yi mu ne Cheikh Saliou Mbacké day xandarkii kallatul ashaaru ifi wa sirru lil xadimi wa sirru ci sëñ Tuubaa te mbóot munta feeñ abwaabukum li bani xabra amun tajahun wa sa'nuhum fihi tarhibun wa takrimu xurrul qamaa'imi law tahqiqa dawma nadan la yayasal faqara saa'ilun wa mahrumu mu ne Cheikh Saliou Mbacké sa bunt waroom ruu yëpp